te nag ñun sunu sëriñ bi fi Ahmad Bamba radiyallahu anhu wa ardaahu moom maanaam doyoon na rek ñu ne Sëriñ Tuubaa daana gàmm loolu doyoon na tegtal ci ne nga xam ne gàmm lu sax la maanaam Sëriñ Tuubaa pëstéef bi mu am ci lu muy def lu ne dafay wér te mooy la yonte bay bëgg kooku rek bu fekkee xam nga Sëriñ Tuubaa daana doy ci cëslaay ci ne Sëriñ Tuubaa daana gàmm kon gàmm wér na loolu rek doy na cëslaay nga xam ne du wax du waxi ab daanukat wala waxi ku murit boo xam da day wax ngir ngir bëgg ëpp ci sëñ bi maanaam Sëriñ Tuubaa ci boobu moo àggoon ci xeeñtu yonente bi ak li wér ci moom ci ak ci bërëb boo xam àgguwaay boo xam ni nit dootu ko ci def ba tax na lépp lu mu jëf bul sikk ni loolee mooy la gën a jege yonente bi mooy la yonente bi bëgg alayhi salaatu wasalaam moo tax loolu rek doyoon na ci gàmmoo moom nag da doon ku fonk gàmmoo moom Sëriñ Tuubaa ndax Sëriñ Tuubaa xam ngeen dafa bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam bëgg koo xam ni dafa moom léppam yonent bi dafa dëkk xolam moom xajalu ci keneen dana wax ni moom Sëriñ Tuubaa ne maanaam kenn ku ne am nga ak màng ci àdduna maanaam loo xam ne moom la yàlla defal nga xam ne moom nga am ci àdduna man nag leen laa fi am gennu màng laa am muy sopp yonente bi alayhi salaatu wasalaam ganimtu xubbal mustafa wa aktafi bi daaka fal muta kafaafan yaktafi maanaam man yàlla defal na ma ma am màng gu matug màng mooy cër bu matug cër te mooy bëgg rasulullah alayhi salaam te loolu doy na ma ndax kuñ jox lu doy da ngaa war a doylu ganimtu xubbal mustafa wa aktafi bi daaka fal muta kafaafan yaktafi noonu la ko takkoon moom danaa wax ne bëgg yonente bi farata la ci jaam ñëpp mooy li mu wax ne yaa man lawul amru kulli wax mi nii abadan wasalli dëban ala man xubbuhu furida maanaam bëgg ko dafay farata ci ci ñëpp noonu la ci doon doxee moom moom sëñ bi nga xam ne waxuma la lépp lu tax ci yonte bi aleyhi salaatu salaam rek sëñ bi da ko fonkoon màggaloon ko jox ko cër boo xam ne kenn mësu fa àgg ci ci ci ci doxin ci doxin moom ci laa dox moo tax gàmmo moom ku ne xam ne sëñ bi da koy fonk sëñ Tuubaa danaa wax sax ni moom bu weer wi ñëwee mboolem ak tayal day jeex ci moom mboolem ak wéradi wéradi yëppam day wéradi gu nekkoon ci yaram wi day daal di wér mboolem jaaxle gu mu amoon sax day daal di jeex danaa wax ne yaa xayra shahrin jaabi xayri mursali adhabta qataan maradi wa kasari am na beneen boo xam ne daa wax ne yaa xayra shahrin jaabi xayri mursali mubashiran maxawta anni kasali anni maxawta kasali wa wajali wa xayrati daa ismatin min xajali maanaam sama jaaxleeg sama saayeel ak yooyu yëpp bu weeru gàmmu ñëwee rek daal di jeex Sëriñ Tuubaa dañ daa wax ne su fekkee ne bëgg nga ci moom dara la ci gën a gaaw mooy nga xaar ba gàmmu ñëw weeru gàmm bu ñëwee du delloo ab laaj loo ko laaj mu jox la danaa wax sax ni moom su ñu ne li mawlidil muxtaari sirrun yuktabu id sawnuhu anil wara yan xatimu maanaam mawlidil muxtaar dafa am secret boo xam ni des koy nëbb des koy lëm ndax mbindeef yi waruñu ko xam yëpp mënuñu ko xam loolu laa doon dund ci ne gaa yu baax yi nga xam ne yàlla dana may ñoom yàlla da leen xamal jamono yi gën a yi yàlla xam nga suñu borom yonte bi daa wax ne inna lillahi nafaxaatun fi ayaami dahrikum aw kama qaala alayhi salatu wasalaam allah fa taarradu laha maanaam yàlla dafa am dafa am ay jamono yoo xam ne ak ay waxtu yoo xam ni loo ca def lu mu néew néew day kawe mboolem loo mën a def ci ci yeneen waxtu yëpp adduna ci jamono jëpp dafa am ay ay bërëb ak ay waxtu yoo xam ni loo ca def ci jaamu yàlla lu mu néew néew mooy kawe nga defar ko ci téeméeri téeméeri téeméeri junni at yeneen yu bokkut ak jamono jooju ñooy yooyu jamono nag yàlla da koy xamal gaayam yi gaayam yi nga xam ne mooy gaay yu baax yi dëgg-dëgg nga xam ne moom duñ sonn ci yenn jaam yàlla yu rëy yi waaye dañuy xam bërëb yi nga xam ne moo ëpp rek maanaam maanaam xéwal nga xam ne moo ëpp bénéfice bu lu mel ne lii lii lii téléphone yi def léeg-léeg mooy bonus maanaam jamono ji nga xam ne ci la bonus yi am nga xam ne moom dañuy def ay trois cent pour cent jëm jëm quatre cent pour cent loolu leen yàlla xamal ñoom ñu di ca dàkk yooyu di ca sóob ñañ àndale di leen ci dimbali mu nekk xéwal ci ñoom yooyee nag gàmm da ca bokk moo tax sëñ bi wax ne moom gàmmu dafa am secret boo xam ni wër fa siiw ñëpp duñ ko xam yàlla koy seet ñam ko xamal rek mu xamal leen secret yooyu nag sëñ bi wax nañ ci bare bare ndax lim nu wax ci gàmmu wax ne ku ko màggal moom nga ci dajal mooy faka shahidan shahida badran maanaam boo ko màggalee yaa ngi mel ne ku teewee xare badar xare badar yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo wax ne yàlla ci boobu moo yër seeni xol ñoom ña ko teewoon ne leen lu leen neex man ngeen a def dutuma leen bindal ci bakkar maanaam yow nga nga mën a am maanaam maanaam genn guddi xëy na pëse bi nga ko defee nga mën ci am tuyaaba yi maanaam bokk ci ñooñee nga xam ne yow shahid boole ci fakk shahid shahid mooy koo xam ne tey yàlla ci boobu moo wax ne ñi ñi ñu tudde shahid bu leen leen tudde sax ay ñu faatu faatuwul wala taqulu li ma yaqtulu fi li ma yuqtalu fi sabilillahi amwaatan ak wala taxsibanna alladina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaun maanaam ñoom ba léegi ñu ngi dund maanaam bu leen leen tudde ñu faatu faatuwuñ bu leen ja jot mukk ne dañoo faatu ñu ngi dund ci dund lañ ne fu seen ruu takkali ko rek dugg nañu àjjana te ñoom sax dañ fay nekk àjjana di wax ak gaa yi nekk bi naan sëñ bi gaaw leen dikk xamu leen sëñ bi maanaam maanaam maanaam li nu ne doon la ko wax ci alxuraan farixina bima aataahum allahu min fadlihi wa yastabsiruna billadina lam yalxaqu bihim min xalfihim du noonu la mi ngoog léegi nag yow sëñ bi wax ne maanaam dundal guddi gàmmu darajay sahaada boobu mi ngi ci yàlla maanaam képp koo xam ne fa man yuazim mawlida xayril baraaya ahmada faka shahidin ku màggal guddi gi yaa ngi mel ne ab shahid bu bekk boo xam ne dafa fekke bisu badar da waxaat ci beneen mbir mooy falaa yu xaasabu xadaa maanaam yowmal xiyaam kenn du la xisaab maanaam sëñ mbir kenn du ko lijjanti da ngay faatu sëñ bi jug fi ñun la kaay dugal biir àjjana sëñ bi loolu loolu loolu loolu sëñ bi kenn xamul lu doon kenn xamul lu doon maanaam lu lu lay noonu sëñ bi amul amul fenn la falaa yu xaasabu xadaa te sëñ Tuubaa ko waxatu lu mu wax wér na maanaam sëñ Tuubaa maanaam li ma ci waxoon léegi rek maanaam lépp lu mu wax rek maanaam ci ci ci ci ab gëstukat boo xam ne dëgg rek ko ñor fi boo xamee Sëñ Tuubaa maanaam lu mu la wax rek maanaam bul sikk keroog misaaloon naa ko fii ci nit koo xam ne ñun ñi kenn ku ne am na nit koo xam ne xëy na xam nga ko mu ànd ak dëgg goo xam ne lu mu la wax doo ko sikk te dama ko misaal ci Cheikh Abdourahmane Masaral bi nga xam ne lu bari ci lu xam nañ ko fii bu taxawoon fii ne sëñ bi gay gaynde ngi ci bunt bi fii la jëm si maanaam kenn du ko sikk fii kenn ku ne na noo noo muccee ngay ngay ngay def waaye kenn du ko sikk ndax xam nañ moom ban ko xamee ba léegi dëgg gu dëggu ak dëggu ci lañ ko xam Sëñ Tuubaa nag moo maanaam ak dëggu moom moo ci kaw bi moo ci kawee ñoom ñëpp moo tax lu mu la wax nii rek day lu wér du xam loo xam ne maanaam yàlla ci moo ko xamal ci anam ga ko neex ndax yàlla moom day xamal ay jaamam lu ko neex ci anam gam ga ko neex mi ngoog sëñ wax na ci yeneen yu bare bari mooy yaxmil iyaala wa duyóor ihyaa u mawlil basir yaxmil iyaala wa duyóor maanaam booy dundal guddi gi yàlla dana la ci defal sàmmal la sa njaboot ak sa kër ay problème doo ko bari ci sa kër ak ay jafe-jafe sa kër doo ko bari loolu sëñ bi rek maanaam koo xam ne da ngay commerce boobu commerce rek fi ne moo moo gën a dox lépp ndax gis dañuy gis ñoo xam ne dañuy yor kër waaye kër ga daan ko taxaw mukk du set maanaam jafe-jafe génn fenn maanaam bu kër gi leen day yàqu fi ëllëg sa njaboot ñuy feebar ëllëg nga lëjër doo am dépense kër gi daan ko dara du set jafe-jafe am problème yu bari yooyu dana yàlla fegal ci darajey màggal guddi gi nii am na benn bu wax ma fii sifaawun li sudur maanaam problème yi xel ak jafe-jafe yi nekk ci xel ndax sadr bu ko borom xam dañuy wax ne yonte bi daa wax ne al ismu maa xaaka fi sadri maanaam maanaam lii toq ci ci ci ci ci ci sadr lu ñuy tuddee sadr ñun dën lañ ko tudd rek waaye mooy xel ak yi ci toq ak jafe-jafe yu bari yi nga xam ne mooy occupé nit ñi loolu maanaam gàmmu bokk na ci njariñ bi mooy day saafara xeeti jafe-jafe xel yooyu ak problème yooyu ci nit nga xam ne nit ki du bari ay jafe-jafe adduna ak yeneen yu bare bare bari Sëñ Tuubaa ci moom moom wax na yi ko ci yàlla defal moom wax na ci lu bare ba bu ma ko doon topp nii day gudd xëy na waxoon naa yan yi ci ci bis yi weesu waaye bokk na ci li nga xam ne moom moom dara gënu ko ci réew mooy li wax ne addaniyal baaqi min ahlil badri bi mawlidil muxtaari alil qadri maanaam ci darajey gàmmu gi ci gàmmu la ma yàlla boolee ci waa ahlu badrin am na fenn foo xam ne dafa wax ne awsala li taadimu mawlidil basir jumlatama fii kutubi lahu usir mboolem li may junj di ko wax ci sama téere yi muy muy ju yéeme yépp ci gàmm laa ko amee loolu te loolu da ko wax a wax a wax a wax yu bare bare bare yoo xam ni maanaam fi ne ñaari xët laa ci am yoo xam ne dama ko topp muy muy muy muy muy sëñ bi wax ay may yoo xam ne yàlla da ko defale ci gàmm loolu kon wane na ne sëñ Tuubaa mi nga xam ne moom nun noo ngi koy sant waxtu ne ndax lépp lu baax lu am njariñ tegtal nanu ko ba tax na murit moom bu njëkk bu ma saa nit ki bu ma saa dugg ci murit ñaari fan ñett nga gis ak murit feeñ ci moom maanaam mu daal di kawe mboolem ñam ñam dendal te duñu ay murit ngir maanaam doxinu Sëñ Tuubaa wa ak maanaam lam leen daal soob jëm moo tax kon bokk na ci murit màggal bisu gàmmu Sëñ Tuubaa nag ni mu ko daa màggale moom wax nañ ne mooy jàng alquran la ci daa def lu bari ci guddi gàmmu ak tudd yàlla ak salaatu alnabi yu bari bari daana ko def lu itam ak it jàng xasida yoo xam ne daa daa am xasida yoo xam ne moom la daa jàng lu ci gàmmu lu mel ne jës bu ak mawahibu ak muqaddamat yoo wax ne moom la daa moom la daa jàng lu ci gàmmu daana jàngalu itam téere kitaab Barzanji bi nga xam ne moom la Jaafar Barzanji def te moom la ñuy jàng ngeen di ko dégg loolu nag day nett li fi ne gane yonent bi adduna alayhi salaatu wasalaam yonent bi bi muy ganeek la ca xew ak ay melom yooyu lay nett di waaye nit ñi xamat xam maanaam xamatuñ sax luñ ci wax ndax niñ ko waxee day gaaw ba wax atrillahumma qablahu xabrahu lkarim bi xarfin saziyin min salatin wa taslim loolu fi ne ab ab téere la boo xam ne al imam borom xam bu mag bu ñuy wax Jaafar Barzanji moo ko def di ci nett li gane gi yonent bi alayhi salaam adduna sëñ bi nag daana ko jàngalu ca njaareem ci jamonoom dëkk murid yëpp gis nga moom it lañ fay jàng jamono si bi nag xëy na boobu ñëpp déggoon nañu arab ba mën ko xam waaye fi ne nii xam na ko ko mënoon tekk moo gën ci biir gàmmu itam da nga gis léeg-léeg keroog am na ku ma ko laaj fi mooy da ngay gis yeegee ñu ne dañ yëlbu naa ñu jóg di di yëlbu fekk loolu cosaan li mooy buñu àggee ci yonent bi fi mu ganee àdduna maanaam nit ñi dañ daa jóg ngir màggal màggal ganeek àdduna gi loolu rek la waaye du ceegee ne am ak ak ak yëlbu loolu itam ay borom xam-xam yi ñu bare bari saxal nañ ko wax ne dara nekk ci fekkee danga da ngaa jug taxaw ngir màggal juddug yonte bi jur màggal juddug yonte bi alayhi salaam ak màggal yonte bi alayhi salaam loolu mi ngi mel ne mu ñëwoon rek nga jug taxaw nuyu ko dara nekk borom xam-xam yu ba yu bare bari def nañ ko te nett nañ ci yu bare bare bari am na ñoo xam ne dañuy wax ne jëru ko waaye boo xam mi ngi aj ci yow yéene ji nga ko defee rek maa ngi gàttal foofu wax